يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bii nga xam ne ci la ñu jëm xam ngeen ne ni ko kilifa gu tedd gi daan defee moom Cheikh Mouhamadul Mountakha xafisahullahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara ni koy defee ci at mu nekk buñ jubee bis bu màgg bii am na kàddu yu muy jëmale ci mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi ak réew mi ak àdduna si yëpp noonu mu ko daan defee it mooy ni mu ko daan defee yàlla na ko yàgg a def lool ñu yàgg koo fekke lool ay ati ati at yàlla eggale yéenam bi yépp ba lu ci nekk mu amee ko nam ko bëggee barke Cheikh Khadim ak ci barab barke bis bu tedd bii nga xam ne ci la ñu jëm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen seereel sunu cant. di leen seereel sunu cant. ndax gannaaw bisu bisub cant la. borom dafa waxoon dafa bëgg ku ko ko santale. kon nag. day cant yu bari. day cant yu bari. daje ci moom. ay cant yu bari day daje ci moom. bala nu ko sant bala nu ko santale. dañ koy sant moom ba noppi. santal ko diggante sant ko diggante ak ko diggante ak bi sallallahu alayhi sant ko diggante boppam. sant ko diggante ko suñu diggante ak moom. doora nag. jublu ci ndigal li. nag jublu ci ndigal li. muy santale ko muy santale ko. santale ko borom. kon nag alhamdulilah niñ ko daan defee rek. kon kenn ku ne la nga man ci lu baax. ci nga am ci pëstéef. jëfe jëfe jëfandikoo ko. jëfandikoo ko. ngir santale ko. ngir santale ko. loolu rek mooy li ci am solo. daal di jiital alxuraan ji. niñ ko daan jiitalee. niñ ji niñ daan jiitalee alxuraan ji. kenn ku kenn ku ne na am posté bu bu ko mënee jàng ñetti kaamil bu ko mënut it te man benn it ba tey baax na bu ko mënut te man koo jàngalu it ba tey baax na la ca des lépp nag na ma ko waxee woon rek lu kenn ku ne lu mu mën ci lu baax. lu mu xam ci lu baax. na ko def ngir santale ko boromam. loolu rek mooy li ci am solo. te nag gën a góorgóorlu nag bu baax nag. sëñ bi moom du du ku ñuy roy ndax mu ne su koo roy waaye nag mën nañoo def suñu kem kattan boolewul sëñ bi boolewul dara ak boromam. lu dul yonent bi mënu ko joxoñ. mi ko joxoñ moom mi mu ko joxoñ yonent bi mu ko joxoñ. doxinam wépp. doxinam wépp. dara lépp jëm ci borom. doxinam lépp jëm ci borom. jëm ci yonent bi. kon loolu du kuñ mën a roy. kenn du ko jëm sax. waaye nag nañ def suñu kem kattan. nekkal ko ci ni mu ko bëggee woon rek. fexe mel niñ bëggoon mu mel ni mel ni. bu nu mën suñu kem kattan. bu nu mënee suñu kem kattan. lu nu mën suñu kem kattan. lu nu men lu nu mën suñu kem kattan. gën koo jublu. nu gën koo jublu. gën a jublu suñu borom. lu nu mën suñu kem kattan. lu nu mën suñu kem kattan. nu gën a dumooyu adduna. gën a dumooyu adduna. ndax noonu la ko bëggee. ndax noonu la ko bëggee. bala koo sant. bala koo sant. nekk da ngay koy nekkal ci li bëgg. da bëgg. la bëgg nag. mooy jublu yàlla rek. du mooy it àdduna bu ko defee diggante bi diggante bi. lu nu man suñu kem kattan. man suñu kem kattan. ci def ndigal li. bàyyi tere yi. nu di ko def nu di ko kem kattan. kon loolu. mooy doxin wi nan ci góorgóorlu bu baax. loolu kon bay ba mu jox sëñ Bas. kàddu gi ndax ndax buñ duggee foofu. duñu xam fu ñuy yemee. duñu xamante fu ñuy yemee. kon li ci des mën nañ ko jox sëriñ Bas rek mu eggale ko. kon sëriñ Bas eggaleel kaddu yi. ni ko daan waxee ak ni ko daan defee rek. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulilahi lazi hadaana li haaza wa maa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana llaah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wassalaatu wassalaamu alaa man bu'isa mualliman sayyidina muhammadin safwati bani adnaan wa alaa aalihi wa sahbihi ahlil ihsaan wa radiyallaahu an baqiyati salaf wa qudwatil xalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigalul sëriñ bi ak kàddu yu yi ci bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp tañ xeebu lool ci jottali ko ci niñ ko war a defee waaye ni ko waxee léegi rek ñu jéem rek suñ kem kattan ndax kàddu yam daa wax ay kilifaam rek benn baatam moo gën suñ junni baat foofa la ko suñ borom teg kon ñi ñëpp ni ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax dundam gépp fii mu wax ci diggam ak sëriñ foofu la ne dundam gépp ak jaamu yàlla dundam gépp liggéey Sëriñ Tuubaa képp la ko doy sox doyoo ko leneen kon yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak kàddu yi nag li ci jiitu mooy nuyu bokk jullit yëpp ñim bokkal lislaam ji yëpp di nuyu itam bokki réew mi yëpp di nuyu bokki taalibe murid yi nga xam ne nag ñoom la sañu digal sañ leen tere ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne li doon sabab si mooy sëriñ bi dafa def li i'tikaaf fii ci jàkkee Serigne Mbacké Madina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ànd ak waa ahlu badrin yépp sëriñ bi nag bam leen gisee amatut jàmm amatut dara lu muy xalaat lu may xemmeem seen cëriñ am mu wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sama yitte jëpp ne mooy bokk ci ñi rasulullahi xamal ko ne ko ñii de bokk ci ñoom faat na ndax lu ko daa maye daa jeex mooy tuur deret tuur deret amatut kon li fi des mooy jihaadu nafsi jihaadu nafsi boobu yi nag mu wax ko ne ko dañ la teg natt yu metti yoo xam ne dana diis lool yoo xam ne yewaa na xam ne buñ ko ko tegee mënoon naa nekk wàllu àgg ci yàlla waaye da ak ngëm mën naa dem bari ki ko wat sëriñ bi ne ko ruugi de laa bindut ba xam lu mu attan lu mu attanut waaye bu ko attanee rek jom ji attan na ko mu ne ko nag natt bi kenn du la ci dimbale kenn du la ci jàppale mooy astaxlisoo li nafsi waaye sëriñ bi daal di sartante mu sarte moo ko ne kon nag ñaar dana ci am dëkk bii nga nekk muy Touba da nga koy di génn ndax yaay ñaanoon sa borom ne ko bu fi wenn ay mën a tabbi kon aw ay mun laa jugee di fenn di la fi ta di la fekk ba jaris it am na sa waajur yu ñuy wax Serigne Bousso bi mi ngi dund te nitu yàlla la te mi ngi jëm jël ay ñaan ko jëmee ci yow li fi mi ngi dund natt bi du ma agsi ci moo tax Serigne bi daal di génn dëkk bi dem Mbàkke Bari ngir xaar fa natt bi nattu bi nag sëriñ bi def ko rasulullahi xamal ko ne ko natt bi ne. mboolem soyaatinu insi wal jinni yëpp lañ lay booleen muy nattu yu saahir ak nattu yu baatin saa su bis akse nattu yi na tegoon de dañ koy fulaat ba mu yokk sëriñ bi di ko dékku di ko dékku di ko dékku ba sama ni jinni yi mat ba nattu bay jeex nag ci at mu mujj ma sëriñ bi wax ne rasulullah da koo xamal ne ko mboolem soyaatinu insi wal jinni yëpp maase nañ dajaloo ngir jéem a seet nu jëme ci sa jëmm ji te yaakaari mbooloo duma ko tas kon nag na nga seet nooy def sëriñ bii nee na mu am jomi jéem a dékku natt bi nee na ba bañ songee jëmm ji ba jëm si ci moom nag alxuraan soppaliku jëmm dox diggam ñoom suñ boo xamal ko ne ko foofu la na nattu nattu bi di jeexe waaye li ma la ci jëkk faye mooy waa banoo israel yi ngay jamonoonteel yëpp ndax ku yàlla sàkk ku ne bindal na këru àjjana bindal na këru sawara mboolem waa banu Israel yi nga jamonoonteel yëpp seen kër yi ñu leen waajaloon yëpp may naa la ko Sëriñ Tuubaa ne ko defaat naa ko addiya saxaaba yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko ne ko man de dara du jóge ci man di dellusiwaat sëriñ bi nag ne ko kon dencal ma ko ba ëllëg ndax sama waa kër yi bopp yi jombale naa leen àjjana juñ xaroon kenn di leen ko jox ñëpp laa fàggul àjjana kon nag denc na ko ba ëllëg bu demee ba àgg bis penc képp ku ma ci war dimbale ma dimbale la ci kon sëriñ bi kenn mënu koo fay lii jaada rabbi bil manasili lada taxarrubi mutayiban lil xalada inni jahaltuha hadaya lilshahab radiya anhum man xamani han shahab kon mooy kër yooyu nga xam ne joxoon ko kon nag bis boobu mooy bis bi nga xam ne ci la sëñ bi digle ñu sant la ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant la yàlla li tàmbale ci ganaar ba ci gileem lu ci waay mën na ko ci defar den nag mi ngi dajeeg ajjuma ñaar fukki fan ñett ci weeru ut wii eh, sëriñ bi neen koy fàttali ñëpp di ko yëgal bokk julli yëpp di ko yëgal bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoom la sañi digal sañ leen tere di ñaan nag bis ñu àgg ci ak xam ne ne Serigne Touba bisam bi ñëpp ko bokk mboolem ko di julli rek ndax ni mu ko waxee rek wahabta lii kaw na jamihel awliya ahibati fii ka analta nayliya def nga ci mboolem koo xam ne wàllu la rek ak cofal sama digga moom loolu nag moo sar ba àdduna sëpp maase ci bëgg ko kon nag sëriñ bi naan mi mi ngi ciy soññ taalibe bi yëpp di ñi mu sa ñi mu bokkal sant ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak sëriñ bi ba sëriñ bi defal leen li mu leen defal di sant mbokk taalibe yi ci liggéey sëriñ Tuubaa bii nga xam ne ànd nañ ko moom te li ci mujj ñu nekk ci ba nag mooy daare Cheikh Khadim ji nga xam ne tàmbali woon na ko ba sori na bala ci des bëriwut waaye ba nag ni ñu ngi ci liggéey ba mu ngi leen sant ci li weesu lépp. di soññaat bokk taalibe bi yëpp ñoo xam ne liggéey bi du àgg ndax murit moom du wàcc du noppalu ndigal lu jeex rek leneen ak siwaat kon nee na mi ngi soññ bokk taalibe bi yëpp ak ñi bokkal sëriñ bi ak ñi bokkal yoon wi yëpp ni mu sant bokk jil yëpp ndax moom xam ne fii mu toog dafa doon sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon ñëpp dafi nekkal la sëriñ Tuubaa doon naan naan yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jami'al wara yaa hadiyan rada foofu la toogee mooy nekkal fi adduna sëpp kon mi ngi ko yëgal adduna sëpp di ko yëgal bokk julli yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu samini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali nafa li gayri llahu qablu sindari bi ahli badini l usudi kadari